إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله mbokk jullit yi ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ngal la way jullit xamal ni foo mën a toll ca feebar ba ca prison ba ca ñàkk ga ca jaaxle ga lum mën a doon boole kook sant sa boroom subhanahu wa taala bi mu la defee ngay ab julit def la lu la nar lu la dal am na ñoo xam ne ñeewoon nañ ñi bëgg mel na yow kon jël sant yàlla foo mën a toll gannaaw ba it wéetalal sa boroom ba ko bokkaale ak kenn jàlla waala bul yaakaar ku dul moom bul ragal ku dul moom bul sukkandiku lu dul ci moom gannaaw ba yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy sab sëriñ kooku mooy sa royukaay kooku mooy ka nga xam ne moom nga war a jox sa xol jox ko sa lépp topp ko ci népp nooy jaamoo sa boroom jalla wa ala mbokk ci gannaaw loolu sunu xutbab tey bi mi ngi aju ci wax ja suñu boroom wax ni xam leen ni day dégg gi ma leen may gis gi ma leen may xol yi ma leen may su ngi ñëwee yowmal qiyaama dinaa leen ko laaj tey nag dañuy yem ca benn ca yooyee rek muy wërsëgal gi ñu suñu borom yàlla wërsëgal ñuy dégg mbokk suñu borom jàlla wa ala nee na maa leen génne ci seen biiru yaay yi xamu leen dara ma may leen ngeen di dégg may leen ngeen di gis may leen xel mu ngeen di xalaate ak a néew lu ngeen may sant mi ngi noonu ak a néew lu ngeen may sant borom boobu nag subhanahu wa taala mbokk bi nga xamee ne nii jox nañu xéewal yooyu da caa teg na ah xam leen ni yowmal qiyaama day képp ku ma masa may muy dégg dinaa ko laaj xéewal googu fan la ko doon jëfandikoo te it mbokk xamal ne sunu boroom ay million ci ay jaamam xañ na leen dégg googee amuñu ko loolee kon yàlla dana la ko laaj borom boobu subhanahu wa taala lépp loo xam ne jëfandikoo nañ ca danañu ko laaj waaye xamal ne mbokk ak dégg muy xéewal gi gën a rëy gu doomu aadama di bana yóbbaloo ci kaw suuf mooy la gën a màgg luy suuxat xol ci xam-xam gën a kawe lool la nga xam ne mooy ak gis gën koo yaatu lool fi nga toog nii mën nañ laa dégtal histoire yi xewoon depuis jamonoy Nuux fi nga toog nii sa bët mi ngi yem ci jàkka ji waaye mën nañ laa dégtal la nga xam ne mooy xew tey Amérique dégtal la lay xew feneen ak feneen loolu kon mbokk muy dégg la nga xamee ni nii doomu aadama mënu koo gis sax mënees na koo melal ba mu comprendre ko kon dégg mi ngi noonu nga xam ne waa ji nga xam ne amu ko daanaka lim tanee dof yi bëriwut mi ngi noonu ca mooy koo xam ne bi muy judd daa juddaale ak tëx daanika xelam moom du mat abadan su ko defee kon moom mooy cosaanu xam-xam mooy cosaanu ngëm yàlla suñu borom yàlla bi mu ñu koy jox nag lan moo tax ñu jox ñu ko daf ne ragal leen yàlla ca ngeen dégg lu ngeen dégg mbokk suñu borom dañoo wërsëgal nopp yi ngiree ñu mën caa déglu lan la yàlla bëgg ñu defal ko ko ci kaw suuf lan la yàlla bañ ñu moytu ko ci kaw suuf suñu borom yàlla teg ci it ne wasma'u wa ati'u la nga xam ne dégg ngeen ko ci ay ndigal topp leen ko loolu kon mbokk muy wane dégg ngi noonu doomu aadama war a góorgóorlu déglu kàddu yi boroomam ñaareel ba mu war a déglu mu fexe comprendre ay xam kàddu yi boroomam ci lan lay wax jëme ca loolee mbokk jullit da ngay gis ni suñu borom mi ngi ñu koy won ci misaal ci suñu doomu ndey yi ñu nekkal ci kaw suuf ca muy jinne yi ngallaawaay ñu bari ci nit ñi bu ñuy jinne rek ñu tiit waaye mbokk jinne yi ñoo nit ñi ñoo yem daf ci am ñu baax lool gën nit ñu baree bari am ca ay saay-saay comme ni mu amee ci doomu aadama yi ñooñi ñu baax lool suñu borom mag ñu cay nettali benn mbooloo boo xamee ne yonent bi gisu leen dañoo fekk yonent bi di jàngal quran wa is sarafna ilayka nafaran min al jinn yastami'una al quran falamma hadaruhu qaalu ansitu biñ déggee yonent bi jàngal quran ñu ne toog leen ngeen déglu yonent bi jàngal quran ba al quran ji pare ñu daal di dem ca seen dëkk daal di ne ee yéen suñuy mbokk jinni ñun day sami'na qur'anan ajaba dégg nañ alxuraan ju yéeme lool joo xam ne day woote jëme ci ak njub bu ñuy jaamu yàlla yahdi ila rushd ah ñun ñu ko dégg day gëm nañ ko topp nañ ko loolee dem na bañ ca teg ne yaa qawmana ajibu da'i allah ay yéen sunu xeet yéen ñi nga xam ne yit jotti li nañ leen kaddug yonent boobee ngalawaay kaay leen ngeen gëm ko mbokk lii lan la ñuy jàngal mooy gannaaw ba nga déggee war ngaa jéem a comprendre la nga dégg lu mu doon moo tax jinne yi ne dégg nañ alxuraan joo xam ne nii ju yéeme la loolu nag tey jii mbokk lu bari ci jullit ñi gëm nañ alxuraan daan dégg ñuy jàng alxuraan waaye xamuñu ci alxuraan dara lañ xam ak néew ci alxuraan mooy kawteef ba jóge ci sëñ Njaay ak sëñ Jóob ak sëñ Sekk amma aayey borom bi subhanahu wa taala xamuñu ca dara waxuma nag la nga xamee ne nii ñoom ñooy yéeféer yi nga xam ni dañuy xeex lislaam mbokk yéeféer ya am na ca ñoo xam ne déggoon nañ kàddug yàlla xamoon kàddug yàlla waaye nanguwuñ ko topp waaye xam nañ ne mi ngi woote jëme ci libéré doomu aadama loolu tax kilifa ya luñ daan wax mooy fexe leen ba bu leen déglu alquran ji fexe leen ba indi ay coow yoo xam ne dana dox digganteeg ñu déglu ko ngeen ñu koy déglu ca loolee mbokk da ngay gis ne nañ ko defe woon jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy am ba suñ jamonoy tey depuis siècle bi ñu génn kii di Glasgow wax ca parlement Angleterre ne xam leen ni jullit ñi tant que ñu ngi yor alquran ji du ngeen mën ci ñoom dara loolee am ñu jàpp nan nañ fexe détruire alxuraan mu ne déet da ngeen xamul alxuraan ji mi ngi seen dënn yi kenn mënu ko détruire li ngeen ñi def koy mooy fexe leen ba créer ay mbir yoo xam ne dana dox seen digganteeg ñuy déglu alxuraan joojee loolee mbokk da ngay gis ne mooy la ëpp ci doomu aadama yi tey seen nopp ya ñu saañ ko ci la nga xam ne mooy ay film ay théâtre ay musique ay sport ay xuraafaat yoo xam ne nii du jeex du xaaj bala ëpp ci ñoom amatuñu toog naan dañuy déglu kaddu borom boobu subhanahu wa taala borom bi loolu lay wax mu ni man day waajal naa ñeel sawara lu bari ci ay jinne ak i nit may naa leen ay xol waaye xol ya duñ ca xalaat may leen ay bët bët ya duñ ca xoole may leen ak dégg dégg ga duñ ca dégloo ca loolu mooy lan mooy na am xol ya ñu nga cay xalaat nu ñuy def ba àdduna baax bët ya ñu nga cay gis ah kay la nga xam ne mooy tax àdduna baax nopp ya ñu ngi cay déglu ah kay lay tax àdduna baax am maa nag xalaat ci luy tax àllaaxira baax xalaat ci déglu kaddu borom bi subhanahu wa taala loolee moom dañ koo sàggane moo tax suñu borom ni ñoom day ñi ngi mel ne bàyyu ma yi bal bàyyu ma sax ñoo leen tane ndax bàyyu ma lu mu bon bon déggal na boroomam amma ñoom seen borom ba leen bindoon ngir ñu jaamu ko dégguluñu ko loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax la nga xamee ni mooy ak dégg loolu mbokk responsabilité bu réeré la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne nee woon na man day amul benn yahud wala benn nasaraan boo xam ne dana dégg na yàlla yónni na ma ba pare mu bañ maa gëm lu dul bu dee sawara la jëm kon lan moo ko yóbbu ca sawara googee mooy dégg ne yàlla yónni na ab yonentam ci gëmu ko loolu moo tax ba mbokkit bu ñu delloo ci ci sunna yonente bi daañ fekk dégg googu nekk responsabilité ak jaami wu nu yàlla ci lu bari suñu borom suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam daanañu wax ne ay waay kenn ci yéen bu toogee ba dégg aji noddukat yi di noddu ngalla waay na wax la nga xam ne moom la noddukat boobee di wax gannaaw ba mu julli ca man ca ñaanal ma alwasila loolu day bu ko defee ëllëg dana dagan ci moom ma ramm ko yàlla tabbal ko ajjana daanañu wax sallallahu alayhi wa sallam heure bu ngeen dee dox ba dégg la nga xamee ne nii mooy ak ganaar bu sab ngalla waay ñaan leen yàlla ci ay ngëneelam ndax la nga xam ne gis na ko ci ay malaak daane wax ne bu ngeen toggee guddi dégg ay xaj di xiiru wala ay mbaam di ah buruus di ŋaar ñaan leen yàlla musal leen te la nga xam ne mooy ayu cheytaan noonu it la ñu doon wax sallallahu alayhi wa sallam heure bu ngeen déggee lii di am mbas mu am ci ab dëkk mbas mooy li ñu tuddee épidémie yi wallaate comme la ngeen di dégg corona bee xew ci Chine yal na yàlla fay ko ci jàmm loolee mu ne heure bu ngeen ko déggee ci place ngalawaay bu leen fa dugg yow mi nekkoon ca dëkk ba dégg ñu ne ah feebar bi de déclaré na fa nee na déet bul génnati bul daw loolee islam da ko tere ci yow mi ngi noonu toog nañ ay siècle ca la doomu aadama yi doog a découvrir wax yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam ci li ñuy tuddee les porteurs sains dekk te mën ngaa nekk ci dëkk feebar dal fa feebar ba mi ngi sa yaram yow defu la dara nga dem yóbbu ko feneen wàllu leen ko ñoom ñu dee ca ci yow sax doo ca dee looloo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam jox ñu la nga xam ne moom mooy tegtal yooyee lii it la ñuy jàngal mbokk julit heure bu déggee xéewal goo dal ci mbokkum julitam wala xéewal yu dal ci réewum julit mu daal di cay kontaan ñaan yàlla mu saxal ko waaye heure bu déggee natt bu dal ab julit wala natt mu dal réewum julit loolee metti ci xolam mu ñaan yàlla subhanahu wa taala teggi loolee ndax day yëg ne mankat benn cër laa ci jëmmu julit ñi julit ñëpp benn jëmb lañu man ab cër laa ci julit ña looloo tax la leen di bégloo danay bégloo la leen di métti itamit daf may métti loolu mbokk nañu xam ne la gën a màgg ci lu doomu aadama di war a déglu mooy la nga xam ne mooy téere borom bi mbokk borom bi moo wàcce woon alquran sant jibril alayhi salaam mu wàcce ko ci xoolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy sant na déglu jibril ba jibril pare yonent boobee sallallahu alayhi wa sallam jàngal ko ay sahabaam daal di sant sahaaba yi ne nañ ko jottilil loolee mbokk mooy la gën a yey ci lu doomu aadama di déglu ci kaw suuf alquran jooju moom mooy dundal sab xol yóbbu la ci sa borom yàlla mi nga xam ne moo la moom alquran jooju moo lay tegtal yoon ba nga xam ne moo lay tabbal ci ajjana yi gën a kawe loolu moo tax ba déglu alquran ak la nga xam ne moo nekk ci biir di waree fi képp ci jaami yàlla yi xoolal rasul sallallahu alayhi wa sallam toog ak sahaaba yi bu mujj da daan toog ak sahaaba yi ba mujj mu ne kenn ci ñoom jàngal alquran ba mu ko jëkkee wax abdullah ibn mas'ud mu ne ko ah nan laa lay jàngale alquran te ci yow la yàlla wàcc alquran mu ne ko déedéet dama bëgg di déglu alquran comme yéen ni ngeen koy dégloo yéen tamit abdullah ibn masud nee na ma ubbi suratu nisa di jàng di jàng di jàng ba yegsi ca aaya ba borom bi di wax ne ay yow yonente bi naka ngay def yowmal qiyaama su ma la indee nga war a seete nga war a seede sa xeet bi yonente bi dama doy na ba ma geesoo maa ngi gis bët ya ma nga fees ak rangooñ lii it la sahabatul kiram meloon mooy heure bu ñu ma san daje dañuy wax kenn na jàng alquran na am alquran ci ñoom la wàccoon bépp aaya xam nañ ko baat ya xam nañ ko ci seen lang la looloo tax moo daan dundal seen xol ya borom bi subhanahu wa taala mu ne innama almuminuna allazina ida zukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imana wa ala rabbihim yatawakkaluun borom bi nee na jullit ñi dëgg-dëgg mooy heure bu ñu leen di fàttali yàlla seen xol ya daal di yëngu bu ñuy jàng ci ñoom alquran seen ngëm ya di yokku du ñu wékku lu dul ci seen boroom loolee itamit moo tax ba munta ñàkk nga la way mbokk julit julit ñi di dem di fekkee la ñu yonent bi alayhi salaam doon bégale ca mooy dajaloo di jàng ci yërëb yàlla bi wax naa la ne sahabatul kiram alxuraan ci ñoom la wàccoon waaye yow njaago bi nag yow séeréer yow chinois yow portugais loolee mbokk kon munta ñàkk ñu am ab daje koo xam ne xam na dara ci téere bi yàlla bi di ñu ko firil ca portugais wala chinois wala njaago ngir ñu nit ñu am yëg-yëg ba sahabatul kiram doon yëg keroog ba ñuy dégg kaddu googe nga xam ne làmmiñ bañ nampoon ci seen yaay la yàlla tànn wàcce ko ca loolee mbokk mënul ñàkk déglu googe yit la muy jëriñ suñu borom wax na ko allazina yastamiuuna al qawla fa yattabiuuna ahsana mooy ñi nga xam ne dañuy déglu kaddu borom bi topp la nga xam ne mooy lu rafet la ci nekk naam aka bari ñuy déglu ay alquran waaye lu tax ñu koy déglu mooy ah ndax yaa ngi déglu sudisi yaa ngi déglu mahir yaa ngi déglu chatri mooy bànneexu alxuraan jooju li ñuy déglu rek mu mel ni musique mais ndax dañ koy déglu ngir settantal aaye borom bi xam ndigal yi xam cere yi mbokk loolu lu néew ci doomu aadama yi ñooy yegg foofee gannaaw loolu mbokk julit la nga xamee ne it moom lay gën a nekk musiba ci doomu aadama di ko déglu ci kaw suuf mooy alquraanu sheytaan mbokk alxuraanu sheytaan bokk na ci lii di musique musique boobee nga xam ni sahabatul kiram bañ koy melal dañ ne dana suuxat ak naafiq ci biir xolu ka koy déglu ni am ndox di suuxate ay légumes ca la nga xam ne mooy tool ba mokk ndox du ñëw mukk taw ci tool bi tey tey tey légumes yépp ñor déedéet day taw muy màgg nànk-nànk muy taw mi màggam nànk-nànk ba baabu mat sëkk na doon ñam bi la pombiteer la ak lu mën a doon waaye mbokk waa ji nga xam ni foo ko fekkit ma nga ci musique ba loolee day suuxat ak naafiq ci xolom suuxat di raxas ci xolom la nga xam ne muy bëgg yàlla ak bëgg alquran loolee mbokk ñu góorgóorlu gën cee bàyyi xel bu baax bàyyi musique boobee tax na ba suñu borom yàlla dig nañu musique bay am ca biir aljanna nga xam ne kenn du ko méngaleeg musique bu al àdduna nga xam ne ña koy way mooy jigéenu xuurul ayn yal nañu yàlla boole ci ñay toog di leen déglu mbokk julit lii boo ko dégloo itamit da ngay xam ne boo buñ la waxoon lii di àtte bi am ci déglu nañ xam ne mbokk àtte ci déglu déglu dafay am yoo xam ne nii farata la ci yow nga bàyyi ko xel farata la masalan tey yaa ngi nekk ci biir julli imaam mi ngi lay jiite farata la nga déglu njàngam imaam mi ngi noonu gannaaw ba tey ji yaa ngi juma imaam mi ngi xutba farata la nga déglu xutba imaam mi ngi noonu loole itamit dañuy gis ne noonee la am nag lu xaraam loo xam ne yëpp jullit dafa war a bàyyi xel mbokk jullit suñu borom dani isa samiu lahwa aradu anhu jullit heure bu déggee ay caaxaan da koy dummooyu wa isa marro bi lëxi marro kirama heure bu ñu rombee ay caaxaan dañuy dem dem bu tedd loolu mbokk al lëxu mooy ëmbal bépp jëf ak bépp kaddu bu yàlla bu yàlla gërëmul loolu lépp dañ koy tuddi al lëxu kon yow jullit moytul ma di déglu ay fen mi ngi noonu képp koo xam ne yaa ngi tàmm déglu fen bu yàggee mën nga koo nettali te bu boobaa da ngay bokk ca fenkat ya moytul ma déglu jëw ci bakkaar yi gën a bon la bokk moytul ma déglu ay rambaaj ci bakkaar yi gën a bon la bokk moytul ma lépp loo xam ne ay théâtre la ak ay maye la yu ñuy reetaanloo doomu aadama yi na doon ca rajo ba la na doon ca télé ba la na doon ca jataay ya la loolu lépp mbokk lislaam da koo araamal loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñu ñaax ci ana kan la ñuy toogal mu ne xam leen di day toogat toogat ku ku waaju baax muy wax lu baax sa xol di ci dund mi ngi mel ne nga toog ak jaay ko te parfum imaam nga jënd wala mu may la wala nga jël ci xet bu neex toogat ku bon muy wax ay wax yu bon fen la jëw la ay maye la ay lu mën a doon mi ngi mel ne nga toog ak koo xam ne day upp ay furnaam imaamu lakk sa yére wala nga jële ci xet bu bon ay yéen ba ko jullit xam leen nag la gën a bon lu doomu aadamay déglu ci kaw suuf mooy la nga xam ne mooy ay shirk ak i bida suñu borom mu ne fa man azlamu mi man iftara ala allahi kaziban aw kazaba bi ayaati ndax am na ku gën a mën a tooñ kuy duural yàlla ay fenn ca loolee mbokk suñu diine yi lislaam tey jii bi ñu demee ba paacoo ko ku nekk am loo féete di ca woote ku nekk yaa ngay taxaw yàlla ba mu defelee sama maam sama maam ba mu waxee yàlla lii am fii yàlla def ko fii lii lii yàlla waajal alaxira kaza wa kaza mbokk ab jullit xàmmeel ñay woote ci dëgg xàmmeel ñay woote ci ay caaxaan képp koo xam ne mi ngi woote ci caaxaan bu ko déglu bul yàq sa temps ci moom rawatina yéen ndaw yi yi nga xam ne yéenay nekk di gëstu sunna xamagu leen un centième ci seen diini la leen war mooy seen temps yépp ngeen jagleel ko jéem a xam alxuraan jéem a xam sunna jéem a xam sun diini nam tëddee bañ a yàq sa temps ci yàqkat yooyu nga xam ne dañuy dajale ay nit war ci seen kaw ngiree dajale alalu àdduna caaxaan yi ñuy wax xurafaat yi ñuy wax heure boo ko gisee sa portable effacé ko dummuyu ko loolee mbokk daf lay yàqal daf lay lor la nga xamee ne mooy borom xam-xam yu jëkk ya bokkoon na seen mbir bu ñu ma saan dajeeg ñu tug bidaa mu bëgg a taxaw naan leen déglu ma dañ naan leen duñu leen déglu ci dara même genn wàllu kaddu loolee mbokk ngeen bàyyi ko xel doomu aadama sa xol bii dafay am impact buy am ci moom ci lépp lu muy déglu kon fexeel ba rek xol bi dara du ci dugg lu dul loo xam ne nii lu baax la lu yàlla gërëm la loolu it mu am ñaari façon déggin mbokk julit doomu aadama bi da nga dégg bu la neexee waaye léeg-léeg nga dégg lu la neexul aka bari ku dugg ci ab taxi pendant trente minutes ñuy wax ay shirk ak biddaa yoo xam ne xol baa ngay bëgg a dagg donte ne mbokk loolee la la ca war rek mooy nga tuub ak dégg ci loo xam ne gone yi ndakaaru xamuñu ko waaye boo laajoon mag ñi nga xam ne ñoo nekk ci jàkka ji ñoom sëriñ Njaay xafisahumullah ak ñeneen ak ñeneen daañ la xamal ne sunu maam yi bokk ñu lu ñaan yere seenu njaboot boo déggee ko saaga dégg wax lu bon dañuy faxas seen nopp nit astafurlah tuub naa ak dégg tuub naa ak dégg ca mooy heure boo déggee wax joo xamee wax ju bon la da laa war a naqari nga tuub ko xoolal keroog bi doomu aadama jëkkee taxaw ne yàlla am na doom lan la yàlla nettali takaadu samawaatu yatafattarna minhu wa tanshaqu l ard wa taxiru l jibaalu hëdda an daaw li rahmani walada bi doomu aadama jikki ne yàlla am na doom suñu borom nee na asamaan yi xaw nañ xotteeku ca mbokk lan mooy asamaan suuf xaw na xar lan mooy suuf montagne ak seen dëgëraay xaw nañu explosé lan mooy montagne ngir yi digg nañ doomu aadama ne yàlla am na doom suñu borom mu ne yellul yàlla di am doom kon it mbokk jullit tey ñun li ñuy dégg ci kaw suuf moo gën a màgg yàlla am na doom wallahi Sénégal gi ñi ngi fiy wax wax joo xam ne moo gën a bon yàlla am na doom heure boo ko déggee na la naqari sa biir xol bu la see rangoon jegee sax nang ca jooy ca xam ne moo la war a gën a naqari ñu fekk lu ci pénc saaga la ndey saaga la bàyyi loolee mbokk kon di mbir yoo xam ne dañ cee war a bàyyi xel bu baax waaye mbokk loolu lan mooy contraire am contraire am mbokk jullit mooy fu ngeen mën a toll jege leen borom xam-xam yi déglu leen ña nga xamee ne nii dañ leen di woo jëmee leen ci alxuraan ak sunna di leen fàttali seen aayay boroom di leen fàttali lii di sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen fàttali nit ñu baax yéen jaaroon ñooñu nga xam ne ñoo war a doon seen royukaay yi ngeen war a àndal ca àllaaxira di ko ñaan yàlla guddeeg bëccëg ca mooy siraatal lazina an'amta alayhim gannaaw loolu it mbokk jullit nañuy bàyyi xel bu baax di déglu suñuy mbokk jullit ci ngiree fajal leen seeni a seeni aajo ngiree fajal leen seeni soxla boo demoon tey ci dëkku occidentaux yi bopp sa bopp kenn faaluwul kenn am na fa loo xam ne amul sax suñu réew ñu tudde leen des psychanalystes ñoo xamee ni nii boo amee problème da ngay ñëw jënd benn ticket su ko defee ñoom ñu teg la ci benn fauteuil di la déglu ngay wax say problème soo paree ñu daal di lay conseiller mbokk li ëpp ci doomu aadama yi ñi ngi am tey cancer ñu ëpp ci doomu aadama ñi ngi am tey ay goitre ñu ëpp ci doomu aadama ñi ngi am ay dépression la ko waral mooy dañuy am problème ca problème yooyu xamuñu kuñ ca waxtaanal xamuñu ku leen cee conseiller loolu nekk seen biir di leen ronger loolu moo tax ba nga la way mbokk jullit doonal ko yaatu doonal di jege nit ñi koo gis mu nekk ak jafe-jafe nga ne ko waaw sëñ bi mbaa du dara la waxtaan ak moom conseiller ko loolee da ngay gis ca jaamu yàlla yi gën a màgg ca la bokk yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na bokk na tuyaaba yi gën a rëy yi doomu aadama yi fàggu ci kaw suuf mooy tabbal mbégte ci xolu mbo doomu ju mbokk julitam lii mbokk da ngay gis ne ci bunt yi gën a màgg ci loo xam ne suñu xam-xam su suñu nopp dana ko mën a jëriñ ci la nga xam mooy suñu dund mbokk kon dañuy gis ne ak dégg day mi ngi noonu la ca nekk ci ay njëriñ bari na lool donte ne lépp du xaj ci xutba bu ñu fi yàlla dajale waatee ci yeneen i jamono nag daan ñëw ca la nga xam ne mooy yeneen moyen ya yegg ci suñu xol mu aju ca gis ga ak lu mel noonu ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mi ñuy wërsëgal ak dégg yàlla nañu yàlla sàmmal suñu dégg yàlla nañu yàlla wërsëgal ñu jëfandikoo ko ca lam gërëm yàlla na yàlla dox suñu digganteeg ñu cay déglu lépp loo xam ne ni neexu ko yàlla na yàlla doon dégg googee luy suuxat suñu xol ci alxuraan ak sunna yàlla na yàlla defal ñu dégg googee lu ñuy jegal suñu borom suuxat suñu xol bëgg yàlla màggal yàlla wéetal yàlla jalla wa ala allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina azab an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin